waaw maa ngi sant d'abord jigéen ñi nga xam ne ñoom laa àndal ci liggéey bi jigéen ñi nga xam ni tey mat nañ lu mat une cinquantaine de groupement nga xam ne ay responsable ñoo fi daje responsable bu ci nekk am nga entre cent et deux cent personnes yoo xam ne man dem naa sama bopp visiter leen gis seen activité xam mbooloo bi ànd ci ñoom ñooñu nag laa dagale seen i leader tey pour xool nu may ànd ak ñoom respecter engagement yi ma jëloon ci meeting bi passé nga xam ne defoon nañu ko tey nag dañoo dégager enveloppe boo xam ne à terme dina mat millions pour le financement c'était dans un premier temps un financement de 20 millions qui va être dégagé aujourd'hui et très prochainement un autre financement de millions va être dégagé et nous allons continuer dinañ boobu pour que ñu mën a dajal l'ensemble n'est-ce pas de la ville de Thiès à travers des leviers de financement yoo xam ne ñoo gën a adapté ñoo gën a méngoo ak li jigéen ñi soxla à la base waaw tàggat yooyu xam nga man damaa yore tamit école bu mag boo xam ne nii Sénégal yëpp xam nañ ko ci xarañam mooy mooy mooy groupe bu tudd experts yi fa nekk ak yeneen experts yi nga xam ne leen jël ñi ngi waajal la semaine prochaine ñëw fekk si groupement yi nga xam ne wax laan tey pour defal leen ay séminaires yoo xam ne dama ci déggoo ak ñoom séminaire yoo xam ni d'abord da leen di jàngal leadership féminin parce que Sénégal dafa soxla jigéen ñi xam lan mooy leadership njiit yi ma dagale tey ñu xam nan la njiit di war a mel pour mun a continuer seen développement ñu jàngal leen management de projet gestion de projet création de projet marketing ci làkk boo xam ne ñoom dinañ ko mën a dégg les cadres yi nga xam ne dëkk bi am na ko dañoo yàgg a réew mi ak ñi nga xam ne dañuy def politique politicienne man ma gëm ni jot na parce que ñeent fukki at nag maa ngi xool dëkk bi ak ñenn ñi ma àndal may woo ñëpp ñu jóg pour plonger ci champ politique bi dugg ci dugg ci nag pour indi ci gis-gis bu bees indi ci taxawaay bu bees indi ci gisin bu bees gisin bu bees boobu mooy li ma soog a def nii liggéey sa alal. gis ñoo xam ne soxla nañ ko nga indi leen ko jox leen ko accompagner leen ñu liggéey delloo ko nga mun ko jox ñeneen loolu dimbali ci la bokk indi xalaat yu bees boole nit ñi liggéeyal politique boo xam ni wutoo ci pour yow loo am parce que ci li ñu nekk war na ñu ngi ñu ngi ciy sant yàlla mais liggéey boo xam dañ ko jëg pour li nga xam ni politique rek moom moo ko mën a régler mooy école yi hôpitaux yu éclairage public lépp li nga xam ne dëkk soxla na ko nga xam ne nit kese ci entreprise mënu ko régler ñëw fekk si ci ñu ci li ñuy def ne alliance pour un Sénégal prospère ñu ànd ci ak modèle di Sénégal Ibrahima Sall ñu liggéey teg ci loo xam ne dañ mën a changer réew mi soobee yàlla. Euh, élection député yi yéen modèle da euh, ngeen firnde demal seen bopp. waaw élection député yi moom leer na ñun ànduñoo beneen parti politique ñun wóolu nañ suñu bopp wóolu nañ suñu doole wóolu nañ li ñuy def moo tax dañuy samp suñuy député bopp ndax ñu waxal li bëgg locales yi aussi di ñëw mille 2019 ñu fas yéene nag xeex ba nga xam ni dëkk yu mel ni cees Gossas Mbadane ak dëkk yeneen yi nga xam ne ñun am nañ fa doole ñu mën a gagné localité yu bëree bëri yoo xam ni soobe yàlla dinañ ci am firnde yu wër